bon business mooy li mu wax mooy moodu-moodu yi gis nañ ni les moodu-moodu son plus utiles que la coopération bilatérale wala multilatérale c'est-à-dire ñun dañuy jël suñu lépp wekk ko ci tubaab bi <laughs> te dañ lay jàngal ni tubaab moom lu mu la jox de la par la main droite. dafa leer dimbaliwuñu kenn seen bopp la ñuy dimbali ndax ñoo la ëppay soxla ñoom dama jàpp ni problème bi en réalité du sax problème une main d'œuvre qualifiée seulement. mais est-ce que opportunité yi ñu jox les investisseurs étrangers est-ce qu'on a donné les mêmes opportunités à nos gens de la diaspora qui veulent investir dans ce pays donc loolu moom xam naa ni beneen problématique